fitti deret la ne eh, yaa am fit yaa eh, am fit kenn du ko àbb kenn du ko dindi fitti deret la ne yaa am fit yaa am fit yaa am fit kenn du ko àbb kenn du ko dindi fitti deret la ne. jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di nuyu. ni ngeen ko waxee noonu la amee. man gune du ma dëkk. xaw ma sax nu mu tudd. xaw ma Abdou la tudd. xaw ma Mbaw la. lu ci munti am daal mooy man duma moromam ba ñuy samp parti bi boo ma nga ca université xale yi ndaw xonk cuy ñun ba ñuy ànd ak Macky moom fe xalaatu loon sax ne lii mu nekk tey dina ko nekk c'est un gosse qui parle pour faire parler mais il parle pas parce que sait rien duma moromam ci jëmm duma moromam ci xel duma moromam ci intelligence du ma moromam ndax bu ma day ñey moom sànqaleñ la man nag du ma wax dessin animé waaw du ma wax ak dessin animé ndax kiriku buñ la ko woowee parce que nekkatoo ci nit yi yaa nga ca dessin animé ya du ma moromam tey du ma moromam ëllëg bu dee ay waajur ñu may seetaan nañ ko yar ndax magam jëmm salti partem taxaw bañ koy def boobu maag makki ak ñeneen ñoo ànd anamu moom xale yi daw ñëw taftal ci lañ bokk kon na fa am loo xam ne sa boo ko moom wax sa kilifa bu ko wax kilifa jàmbur man dama may doomi toll ne moom war naa taxaw naan dàq nañ ko mu lii la wax ak a la te fekkul dañ koy sanc da ko fekke mooy gune yi toppoon Macky Sall di leen attaaye loo rek ñoo ñoo fii man nag du ma fekk ab dessin di wax ak moom ndax xam ngeen ne su may wax damay wax ak koo xam ne buy wax may tontu wala muy tontu may wax waaye bu ñu demee ba lay wooyee kiriku ma ne kiriku nañ koy woowee duñ ko nëbb abu kiriku maa ko wax abu kiriku mbaw comme que day wax rek dañ koy dañ koy dañ koy waxloo ñu nekk ci ginnaawam ak ñu nekk ci kanamam yëpp xam naa leen Macky man duma ànd ak moom ci affaire caaxaan su ma fi jógee dinaa dem sama sëriñ mu jox ma ndigal alxames suba danaa taxawal mouvement bi mu neex leen mu naqari mouvement bi danaa man duma ma tom sa du ma tom saw yee du ma dartañaa dessin animé ak dessin animé ñooy wax waaye nit ak dessin animé mun wax mooy kiriku ah. maa leen ko wax fu leen rombati ne leen ko kiriku mbaw bu ko bañee tey lay dee ah. man maa ngi nii Moustapha Diakhaté makki sàll ngi nii di ma dégg su ne waaw te gisuma ne waaw boobu waaw la damay taxaw ne déet te loolu nëb ma ko waaw léegi nag ba mu ne parti bi kenn du fi am mouvement maay taxawal mouvement ba mu mouvé waaye moom kiriku dessin animé boo xam ne xale yi dañ la koy woowee ndax boo nekkee ci ay biir kenn du la gis dañ lay loxoti man damay moromam duma moromam ci taxawaay ci xel ci xam-xam ak ci jëmm wayati bi way bi ko doon wayal xale bi lu mu tudd Abdou. Abdou Kiri